ci yow euh, tendance prix est-ce que nous nañu aussi changer sur le plan international revenir à des prix tout naturellement <laughs> dañuy parce que am nañu suñuy des charges on a un tableau de comparaison la jaay la ah tendance yi pétrole bi fret bi donc mën nañu ci prix normal donc euh, c'est le marché qui détermine ça donc euh, à travers la vente de ces produits là donc si nous avons une marge bu appliquer 5 6 si nous avons appliqué ko marge naturellement nous avons fa ñu nekkoon donc c'est ce que nous avons kenn am parce que les euh, sénégalais sénégalais bi moom que xaalisam moom xam day boutique day dem ci concurrent bi day dem des grossiste bi day ñëw Auchan comparer prix yep su comparer jël ay annotation fa gën yomb fofu lay donc nous, on a tout intérêt à garder notre politique d'être toujours moins moins cher donc mon motax client clients yi di ñew si ñun parce que bis boo demee cheral cher, client yi bàyyi la fa dem sen yoon ah. ñom ñom ñoom moom dañu gis ne ci marché bi dañuy tam gis euh, bon ay ki yo xam mairin yo xam dañ lay as dañ lay attiré ba nga tam leen. xam nañ changement yombul ci fi ngay dem di jënd. Mhm. ñu commencé di yéegal tank tank c'est quelque chose que. qui est waaw lolu lolu lolu gis nañ ko fi wante sénégalais yi nañu muus go xamante ni loolu mënatoo leen ko def chantage. chantage économique mënul nek parce que ñom ñoo yor seen xaalis di dépenser fu leen nexé fu leen neex ñu dem jënd nous leen neex ñu dem comparer xool ba li nga nous ni doy nous nous seen bët ñu jënd ko kenn du leen parce que nous ba euh, à côté de cela nous sommes une entreprise qui est légalement constituée c'est une entreprise de droit sénégalais donc euh, nous avons ay employés on est actuellement nous 1830 collaborateurs sénégalais c'est des emplois directs créés au Sénégal et plus de 600 fournisseurs sénégalais donc nous ñëpp. Nous liguer avec nous ñu créer une économie circulaire pour xamante ne ñëpp dañ ciy gis seen les fournisseurs les collaborateurs ñi nga xam ni en définitive moom mooy les clients. clients yi bis bu ñu demee gisatuñu seen bopp dañuy wëri ji fëgg na yow léegi pour clients yi gën ci gis seen bopp ak politique boobu ngeen di jàppale ndax gisoo ne war nañu mën a tendre vers parce que yaa ngi ko doon wax léegi vos taux c'est à cinq à six pour cent aussi am na produit yoo xam ne tendance haussière bi laalu leen est-ce que tey mënoon nañu xaar réduction de taux sur ces produits yi nga xam ne tendance bi laalu leen gën ko yombal justement pour compenser yi nga xam ne dafa yokk ngir jàppale ñi ñi parce que xam nañu conjoncture dafa am aussi ici au Sénégal donc conjoncture am na wante ñun taux ce suñuy tout. actuellement sur le marché sénégalais Momo et toi yi gën a on a les meilleurs prix on est les meilleurs mieux disant et on a les prix les moins chers moom moo tax wante taux boobu noonu moom moo lay permettre nga gérer li nga xam Momo moom say frais personnels parce que da nga am ay légalement constitué. chaque mois nga war faire fay say ay salaires nga war leen cotiser l'IPRES. war leen euh, cotiser caisse de sécurité sociale ak yeneen yi nga xam yëpp emploi yooyu da koy da créer nga war ko def chaque mois donc soko waré def chaque mois charge personnelle bob lim lay revenir si ce chiffre mën na dem ba nek 40 à 50% donc lolu su nekkee taux yi da nga ko da nga ko wàññiwaat encore boobaa yow yaay gaañu. et donc dafa am ay famille yo xamantene ne si liggéey boobu la dépendre parce que 1830 collaborateurs sénégalais nga am ko konteel ku nek so amé sa jabar sa dom ak ñepp ñi nek ci ginnaw nga war leen compter ñoo ñepp ñaata lañ donc do jël risque. Euh, mettre seen emploi en péril. ba ba di daaneel parce que yow bis boo jëlee risque boobu pour ay pour sénégalais après ñu daanu ça veut dire que da ngay indi crise sociale ci dëkk bi donc crise sociale boobu li koy éviter moom mooy nga maintenir nga maintenir euh, say say say taux ak say marche, ba pare méngale ko ak li nga xamni mom ngay am comme frais. d'accord léegi ba ba ba kañ tout ça yok bi ba kañ. ah loolu yok bi ginnaaw jógewul ci ñun c'est au niveau international. Nous ah, xanaa ba situation rek. sénégalais trop accès sur le marché international. est-ce que tamit mën nañu yaakaar. waaw léegi am benn indicateur mën nañ ko citer moom fret bi taux fret bi fret bi dafa Sénégal fret maritime bi lan parce que durant Covid ils ont acheté beaucoup plus de biens que de services et ils étaient confinés. à un moment donné war ngeen ko dégg conteneur dafa manqué won si monde bi amatul won donc nit ñi di wër conteneur mom moo tax spéculation yi gaay gars taux bi di yéeg ba 40 ñu yéegal ko si fret maritime bi donc li ngay fay muy ñëw day gëna bëri donc bi conteneur bi conteneur yi yéegee nga wara a ñëw fay de plus loolu yépp day répercuté wu si say prix su répercuté wu ci say prix yow li nga mëna a def mom moy ñew ah wax ak say client ne len li ak li amna fi yokuna feulé yokuna fi couru pétrole bi tamit yokuna na ah lenn rek lañu mëna def mom moy répercuter ko ci prix pour baña vendre à perte parce que vendre à perte c'est faire du dumping benen indicateur bi mom moy barilu pétrole bi barilu pétrole ñëpp xam ñi ni day yéeg day wacc té pétrole ça yégué transport maritime bi par exemple eh, si fofu nga kay fofu lay joggé mom mo kay alimenté donc baril bobu mëna dicter li nga xam mom moy hausse ak baisse yi am ci yenn prix wanté du prix